alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi eh, Kossy TV yoon rek moo farata ku fa xaj benn yoon yonent daf ne ko aj benn yoon joxe nga farata ko aj ñaari yoon lebal nga yàlla ko aj ñetti yoon nag goreel nga sa der ak sa kawar ci safara Eh, benn hadiis itam mu wax ne koo ne may kattan nga am wërsëg ngay toog ba sama néeg mi juróomi at eh, kon sant loo xewal ak yàlla wala boo dee mën ngaa nekk yowar wala mën ngaa nekk yowar wala nasaraan eh, aj màkk dani jëmwee farata waane aj at mu nekk farata la ci mboolem xeet wi farlu kifaay la at moo xamoon ne kenn ajuwut makka ci jullit ci àddina yëpp dinañ bakkaat e waaye soo ah, soo amee mu aji rek moom mu wàcc ñi nga xam ne mënuñoo dem e koo xam ne aj nga safarata ba noppi nag at mu nekk nga xëy na bokk ci mbooloo mi taxawal farata jooju kon aj boobu du tax mu lu nekk naa fi rek am ci fay nekk farata at mu nekk ndax ñi xuutu xuutu mboolem jullit ñëpp xaj néeg bi daal war na mboolem ko mën a at mu nekk eh, moo tax ah, man danaa bëgg di dem makk saa yu ma ko mënee du at mu nekk daal waaye gën a bari nay dem dem naa fukki yoon ak juróom wax na ne waral na leen ngeen aj ndax ngeen demee bu makk da ngeen ci am ay njëriñ yoo xam ne yéen la leen ak da ngeen tuddee yàlla itam njëriñam mooy ku ne da nga fa dajeeg sa sa kem boo demee waa rajo ba ñu ngay dal ci waa rajo ba politicien yaa ngi dal ci politicien yi commerçant yaa ngi dal ci commerçant yi borom xam-xam yaa ngi daje borom xam-xam yi chef gouvernement yaa ngi daje chef gouvernement ku nekk da nga fa dajeeg sa kem waxanteeg moom ngeen sotti am sa ngeen dimbale loolu ci njëriñu aji la bokk yàlla yi mu tëral yëpp def na ko pour ñu jaamu ko màggal ko ay def na ko it muy njëriñ loo xam ne fay dellu ci nit ñi léegi képp koo xam ne jàpp nga diina lislaam yaa ngi jëriñ bindeef yëpp koo xam ne itam sàggan nga diina lislaam xataa bañ a julli sax eh, tooñ nga bindeef yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant ñu jàpp seen diine te di leen ñaanal yàlla dimbali leen jëma ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu